صلاة الذي في كل سهر وفي سفر حماني على ماهن مع الحس والسفر sunu mbokk di sunu xarit di sunu wëllëre di opérateur économique bu mag di taalibe Serigne Touba di koo xam ni diina ak lislaam a ko ñor mu ñëw fii ci turam ak turu magam Abdoulaye Dia président directeur général bu Senico mi nga xam ni mooy organiser concours international alxuraan bi nga xam si ni mooy am ci weeru koor gi mu ñëwoon fi nag tey ziyaare suñ ci bisu màggal ga ñu rafetlu ko bég ci kontaan ci ndax euh, bëgg li muy for for moo ko ëpp doole ndax damay wax ni ñoom ci dëkk bi lañ dëkk am fi kër di màggal comme ñëpp di am ay gan comme ni ma koy amee di màggal comme ni ma koy màggalee ndax bisu màggal Touba moom kenn dootul nekkati Serigne kenn dootul nekkati sëtu Serigne Touba ñëpp ay taalibi Serigne Touba lañ doon fas yéenee gani Serigne tubaay ñu teeru la leen teral leen ganana leen moom mii li ma war ci bis bi moo ko ci war waaye teewul dafa bàyyi ay yitteem bàyyi këram ñëw déplacé wu ñëw ci ñun. wala fii nag dañuy wax léegi waxoon naa ko sànq ni dañuy am lu ñuy wax lu am solo loo xam bët mën naa xool fu ko neexul làmmañ mën naa wax lu mu gëmul xol mën naa fas lu dëgguwul ca moom waaye tànk fu mu moom dem borom a ko fa yóbbu mu nekk xare bu baax nekk ku jàmbaare koo xam lislaam a ko ñor ànd ak xaritam yi ñoom sëñ Maxtaar ñu àndal ñëpp wax dëgg yàlla ma rafetlu lii kontaan ci sama xol sedd ci wane ni ku ku nu fonk la ku nu yëg la kóllëre ko tax a jóg te alxuraan moo wax ni waaw foo bi naa di inna naa da kaana dana ko laaj mbokk moo ko tax a jóg te yàlla moo wax ci alxuraan wa taqullaha allazi tasaaluuna bihi wal arham na ngeen ma ragal man yàlla mi nga xamante maay dogal ci yéen mbokk direct boo liggéey danaa leen ko laaj yooyu yëpp boole ko mu bokk ñëw beneen bi ci des tamit mooy li ñu tënk mooy diine di lislaam di alxuraan te yàlla wax ci alxuraan yi wa'tasimu bi hablillahi jamii'an wala tafarraqu loolu bokk ci li xam si ni moo tax mu ñëw ànd ay mbokk yi mu nekk nag loo mu nekk jëf joo xam ne nag jëf ju ruy ci ñun la jëf ju sedd suñ xol la taxawaay bi nga xam ne nag am na ko ci réew mi di def lu baax di dimbale te yàlla wax ci alxuraan yi wa maa yanfa'u naasa fa yamkusu fil ardi ñi ngi ñaan aay jooju yàlla rëppil ko ci moom sëmbaltal moom moom ak ku ko yéene di ko ñaanal yàlla jàppale ko ak xaritam yi nga xam ne ay wëllëreen mi di ay xaritam mu ànd ak ñoom ñoom ma koo ma jàppal gën ma koo jàppaleel ndax ndaw la waaye ndaw la loo xamante ni si ni lépp luy fo wala muy caaxaan wala mbir àdduna dégguñu ko ci bu ma ko ci déggoon ni damay jël sama téléphone woo ko ni ko lii nga nekk du dëgg du yoon ndax kenn xamula ci lii say maam lañ leen xamoon mooy alxuraan ndax bay say maam Serigne Touba di leen jël di leen boole ak maam Cheikh Anta alxuraan ak diine ak lislaam moo taxoon mu fab leen boole maam Cheikh kon yéen loolu nga xam ni ci ngeen juddu yéen a koy doxal yéen a ngi koy dugal te alxuraan ni walazina amanu wa tabaatum zuriyatahum bi fa nga xam yóbbu leen fa àggale leen fa lii daal rafet nañ ko ñu lay sant di la yóbbante ay ngërëm ak ay siyaar ci Abdoulaye Dia di ko xamal ni taxawaayam ci ñun gis nañ ko yàlla mi nga xamante ni si moo wax ni a doon ni astajib lakum na ngeen ma ñaan may ren ni ngi ñaan ci yàlla ak barke alxuraan barke bis bi yàlla jàppale ko yàlla defal ko ay xéewal te dafa am benn borom xam-xam bu wax ni euh, euh, nit ki nit ki jëfam bu ëllëgee yomal xiyaam ci jëfam ci lay mooy balance bi nga xamante ne si ni ci la ko yàlla di peese te bu ko ci yàlla peese ba pare yi da koy wëlbatiku def ko mu doon waruwaay woo xamante ni ci la jéggee siraat yàlla na ko yàlla defal loolu yàlla defal ko it jàmm defal ko xéewal jàppale ko suturaal ko ba li nga xamante ne si ni mi ngi koy def ci réew mi ci lu baax yàlla dimbali leen ci gën nañ ci saxal loolu lépp nag boo ko Ablaye ma ne ko man ndax yéen yéen ay magam di ay rakkam jàpp ko taxawu ko jàppale ko kon taxawaay bi nga xam ne am na ko ci bisu Serigne Touba bi yaatal ko ci njabootu Serigne Touba gépp yow nga jaar ci tànk yooyu yow ñu ngi lay sant baax safaa di la gërëm di ñaan yàlla mu def la ngay mag def la mag moo xamante ni sin yàlla moo ko téel boppam ba ni nga xam ni noonu ngay doxee yàlla continuer la ci ba pare may la nga dun téeméer at comme ni ko sëñ bi waxee daanaka ñun mënuñ fi yëkkati kàddu yu bari yu lool daanaka moom ni mu ko waxee rek suñu sëriñ la suñu mag la suñu xarit la te tey jii ñëw ba fi ñëw wax dëgg yàlla comme li mu wax moom moo ma boole ak moom muy wëllëreem di ko waxee tey du bis boo xam ne ñun suñu kër ngi fii wax dëgg yàlla gan yaa ngi kilifa gi ci kër yi ma boole ne ma demal tan moom ba ci moom nga santal ma ko ndax teraanga yu mu fay def tey wax dëgg yàlla mënoon na ñi kat ay taalibe lañ ñooy fa indi teraanga waaye moom it mi ngi fay yénn ay teraanga wax dëgg yàlla di lu ñuy sant di ñaanit ñun tamit ci barke borom Tuubaa ci barke bis bu tedd tedd bi yàlla suñu borom guddal fanam yokk wéram defal ko xéewal yu ne gàññi gàññi li suñ tubaab di séddal yàlla bu ko ci kenn ëpp yàlla bu ko ci kenn ëppale ñu ngi koy ñaan ci barke Cheikhul Khadim ñun ñëpp daal ñu ngi sant vraiment di kontaan lool te it wax dëgg yàlla di ko jottali cantuk Ablaye dëgg yàlla ba ñu ñëw fii mu yebal ñu ñu fii ñëw wax dëgg yàlla nee na ma ma ko santal te wax ma ko jot naa ci teraanga yëpp wax dëgg yàlla xat-xat yi mais waaw maa waroon ñëw mënumaa ñëw na nga fa dem ma ko ba mu boole yàgg na wax dëgg yàlla te it mu ngi koy doxal di ma jàppale ci lépp may wax dëgg yàlla ma def ko mag wax dëgg yàlla comme li mu wax rek ñeme na moom bokk na ñi nga xam ne tey ci dëkk bi wax dëgg yàlla ci kilifa goo xam ñeme na ma fekk ma ci lu dul yooyu wax ma ne ma defal li ma def ko ndax suma kilifa la te loolu ko jàppee wax dëgg yàlla te it wax dëgg am comme euh, ci kilifa dëgg yàlla mooy que ni mu ñeme la parce que moom xoolul man maay diw wala du diw wala diw li ma xoole mooy rakk rek dëgg yàlla lu baax la may digal ci lu baax la may soññ fu ma toll في كل زار وفي سفر